Euh, Adama Fall démb euh, waxtaan nañoo euh, journaliste ba nekkoon waxtaan nañoo ak président Macky Sall. ba waxtaan ak moom maa ngi voilà bu waxtaan ak moom lu ñeel relation bi nga xamante ne ñu ngi koy wax boobaak léegi ci kaw diggante moom ak Ousmane Sonko. Euh, euh, leeral yum yum ci indi mais gis nañ euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo féeteeg Macky Sall wala parti au pouvoir ñoom ñu ngi ñu ngi wax naan Macky Sall Ousmane Sonko waxtaan bi yàgg na mais démb gis nañ ne seetal na Ousmane Sonko quand même. seetal na ko naka. parce que appel téléphonique nee na mosuñu ko sekk mais dafa am ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo. mais waxtaan kay waxtaan waxtaan waxtaan. mais est-ce kon loolu ñu ngi wax naan Ousmane non waxtaan non déglu rek. waxtaan mm-hmm. ba mu dooree du tey man ba may wax ni ñu ngi waxtaan du waxtaan c'est par personne interposée. voilà mais waxtaan du Ousmane toog Sonko kii toog parce que il est sous la sous les liens de la détention mais est-ce que waxtaan boobu tax na. mais waxtaan am na waxtaan waxtaan par personne interposée Atepa ki ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. mais Atepa moom leer moom quand même. non am na puisque waxtaan am na sant yàlla. parce que est-ce que waxtaan boobu nit ñi foog am na. si nee naa la waxtaan bi dana gën a leer sax su loi bi duggee loi d'amnistie bi su demee assemblée. waaw parce que ñu le Benno et le Pastef vont se liguer pour faire voter la loi. le Benno et le Pastef. ah oui. loolu la yàlla dogal non non loolu moom Macky ndaanaan la de loolu moom mënuñu ko. président Macky Sall ndaanaan la. parce que la loi d'amnistie arrange les gens de Pastef. mais ñoom d'accorduñu lool de d'accord waxtaan am na waxtaan bi moom ñoom d'accord. waxuma waxtaan. nee naa la loi dam euh, loi bi su demee on pour amnistier les faits nga yaakaar Pastef du ko voté ah Pastef kay dinañ voté ndax ñoom Ousmane lañ lañ waaw kon ñun waa Bennoo yi waa Pastef yi ñooy ànd voté loi boobu peut-être waa taxaw yi ber gedd parce que amoon na temps ñu nag waa taxaw ñoo àndoon waa Pastef bi féete fee amoon na temps barki Demba Ndiaye ñu nag waa PDS ñoo àndoon n'est-ce pas mer mais suba ñu nag waa Pastef ànd loolu Sénégal c'est ça Sénégal dañuy waxtaan waxtaan mooy régler problème yi grand yaay booy waxtaan mooy régler coow yi mooy ci la ñuy trouver solution parce que su waxtaan amuloon tamit nañu nañu waxtaan quoi su waxtaan amuloon lu bari du am dans ce pays là. mooy li le Sénégal est un pays de dialogue nañu tàppe xol yi. mais mais mais xam nga waxtaan am na waxtaan am na mais. boobu mais waxtaan moo tax Khalifa Sall bokk. mais euh, day waxtaan moo tax waay may ma waxtaan moo tax Khalifa Sall bokk ñu modifié la l'article vingt neuf xaw ma trente de la code du code électoral pour Khalifa Sall bokk ak Karim Wade non. wax kon nag bàyyi leen ñu waay instant yi ka Ousmane Sonko la ñuy wax. waaw ka Ousmane Sonko la ñuy wax parce que waxtaan bi nga xamante ni moom la nit ñu foog. Euh, euh, maanaam ci gars yi rek lay jógee mais moom en personne ba tey dégguñ ci mu mu mu wax ci ndax Ousmane ku ne xam na ni boo ko waxee midi balaa une heure mu tontu la. woo. gis nañ aussi ñi nga xamante ni ñoom la àndal. Eh. ñoom catégorique nañ ci lool. catégorique daan kat. ñu dafa am ñuy yuuxu ci kaw am ñuy négocier ci suuf maa la ko wax fii am na ñoo xamante ne d'accord uñ ci Ousmane Sonko génn dañu bëgg candidature Bassirou Diomaye bi continuer. mais loolu loolu fii laa la ko waxee li nga wax APR pro Macky a Amadou am na Pastef de pro Sonko pro Diomaye commencé na de. Mm, loolu loolu loolu yan problème nga ci am. yan problème lu tax ñu bëgg def. éle Sonko moo moo porté choix am. c'est vrai parce que xam nañ ni c'est pas vrai. ah pourquoi c'est pas vrai la vidéo. Oh, oh, oh. vidéo bu récente boobu c'est une vidéo récente di. après la la candidature de Bassirou Diomaye dafa ñu Bassirou Diaye Diaye kon jàll comme candidat sañ na bañ a taxaw ne Bassirou Diomaye mooy candidat sañ na ko. mais vidéo boobu lu yàgg la. c'est pas vrai c'est pas du tout vrai. Ousmane Sonko génn ci élection yi génn ci kaso bi ñu modifier texte yi mu nekk candidat tu penses qu'il a que ça arrange les gens qui sont proches de Bassirou Diomaye. mais yow mais mais ku ne xam na ni Ousmane Sonko ak Diomaye réeroo wuñ quand même. de dama lay wax est-ce que ça de proche Diomaye. mais ba proche parce que Pastef benn la. am na ci ñoo xamante ni Diomaye président waaye dooñu may ba ambition yi duggee nag la benn bi jeex. ok baa Ba ñun ñun ñii ñii ñëpp avant Macky Sall di nekk bañ doon wax ni moom mooy nekk suñu candidat dafa war a samp troisième mandat ñun ñëpp benn la ñu woon wala. Mhm. tey di tey saa yow yaa taxaw ne dafa am pro Amadou ak pro Macky. waaw information bu virale la. waaw mais léegi information nga bañ a mais am na ah, mais boobu amul ci benn info. ñu ne am na. dafa am les pro Amadou les pro Ousmane am les pro Bassirou Diomaye El la. Amadou Ba pour Bassirou Diomaye la Abass Fall pour Ousmane Sonko la danga nga déggati Citizen li déggati nga ko. Ousseynou li da nga ko déggati pour Sonko la da leen déggati. mais mais El Malick Ndiaye moom expliqué na loolu. invité nañ ko FM euh, euh, euh, questionné ko ci loolu mais li mu wax leer na. mooy. Ousmane moo leen tànnal Diomaye moo tax ñu téye Diomaye Ousmane mooy. Diomaye Ousmane li mu bëgg ci àdduna kenn dong ko ko mën a defal. muy la président de la République Macky mi nga xam ne day dem moo tax mu ngoy ci de moo tax mu waxtaan de moo tax mu Ousmane Sonko ngoy ci président Macky Sall bañ mu rëcc ko moo tax mu ngoy ci mais keneen ku fi toog président Macky dem keneen ku fi toog 10 ans nga fiy toog ci ci biir 10 ans yi dina am beneen jeune leader bu génn émerger Ousmane Sonko dispare tu penses qu'il va l'accepter il a des ambitions pour être président de la République de ce pays là bàyyi leen nit ñi politique laa wax réel politique laa doo ko nangu Diomaye du dem dialogue hmm. les hommes de Sonko yi doon dialogue qui sont les hommes de ah, ko diis ca dialogue ba <laughs> mais les hommes de Diomaye duñ dem ca dialogue ba mais les hommes de Sonko yi kon maanaam su ma déggee bu baax dafa am ñu nekk biir. nee naa la pro Diomaye ngi fa pro Pastef fa ngi pro Sonko ngi fa gëmoo ko am na fa. déglul Ousmane Sonko suñ ko génnee kaso. Mm. modifier l' article cinquante sept du du code électoral. Mm. Ousmane Sonko nekk candidat à présidentielle. l' article L57 du code électoral kon yow da nga a wax ko ñoom tout sénégalais électeur bi rek ne tout sénégalais peut peut se présenter à une élection présidentielle suñu su ma déggee baax loolu moo tax euh, waa Pastef ba kut ko kut élection am avant. mais bien waa ji génne certains certains qui mais la grande n'a pas compris la grande masse est comme toi Sonko yi Diomaye Diomaye mooy Sonko mais Sonko du Diomaye de Diomaye utilise Sonko pour aller de l'avant Diomaye utilise la nom de Sonko pour jëm ci kaw mais Sonko du Diomaye. Hmm. Adama Fall li nga wax garaaw na de. ah. li nga wax doy na waar de. seet ko rek yuuxukat bi Guy Marius Sagna la. waaw négociateur bi Abass la. nga ne yuuxukat bi yuuxukat bi ci kaw. waaw Guy Marius la te xam na lépp nag xam na lépp. ok négociateur bi Abbas Fall la. Abbas Fall mooy négocier pour la libération d'Ousmane Sonko. négociateur lu bari mais yuuxukat bi Bassirou Diomaye la kii la <coughs> Guy Marius Sagna pexe amul il faut Sonko taxee noonu.